nañ leen ko waxee ca bopp rek la ñuy dugg ci yaatal gi ak kon lu tukkee ci secrétariat exécutif national bi nga xam si kon njiitu réew di président Macky Sall moo ko woolte woon tey jii ay jegeñaaleem li nga xam si nag moo fa ruuse ëpp ci doole moo di dëggal ne Amadou Ba mooy ab candidat ci yile élection tey ñaax na képp ku farak moom mu daal di topp ci ginnaawam duggu àll bi nag dem campagne yi Seydou Gueye moom mooy porte parole APR nekk itam ministre secrétaire général bu gouvernement bi ñu teewlu ko gannaaw jokkoom ci téléphone beeg Amadou Sabax Ba. secrétariat bi tey euh, dañ ko demal mu nekk secrétariat boo xam ne dafa gàtt. parce que liñ ci doon waxtaanee moo doon euh, affaire tàmbalik euh, campagne électorale bi. loolu nag am na dogal bu am importance boo xam ne moom foog naa ne réew mi ñu ko doon xaar. parce que loolu lañ doon dégg. li président Macky Sall wax gannaaw bi mu gërëmee nit ñi nga xam ni. ñoo ànd ak moom ci parti bi depuis 2008 ànd ak moom ak ñi ñu fekk si ak ñëpp ci loolu mu rotal benn dogal boo xam ne ñun secrétariat bi ñoo ko d'accord ñun ñëpp ñu fa teewoon euh, mooy waxtaan wi waruñu sàggan ba di ñàkk élection yi donc li nga xam ne mooy taxawaay bi mu xaar mooy ñëpp tënku ànd campagne def liggéeyu politique bi ñu tàmm def ngir amadu Ba mën a gagné élection yi ni ko ko yéenee ak ni ñu bëggee mu am. ñu naan njiitu réew mi dafa mer ba du soutenir euh, candidat amadu Ba ndax article de presse yi mu gis. non président Macky li mu wax tegtal ko. Sénégal moo ko ñor ndamu Sénégal moo ko ñor. te tey jii ci jàngatam. te ñu ànd ceeg moom. réew mi ëpp naa bàyyi ci ay loxo yoo xam ni kenn xamul yenn loxo la. li dal xel mooy liggéey bii mu tàmbali. te nekk liggéey boo xam ne ñun jàpp nañ ni lépp matul ndax daanu dajul suuf waaye am na jeexital boo xam ni sénégalais yi gis nañ ko ci wàllu bare li ci des ñi ko ko war a mottali mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom jiital candidat bi nga xam ne mooy Amadou Ba pour ñu avancer loolu mooy li am solo maintenant ay rumeur nee na kuy dem fii ku mu neex dem loolu amul li ñu wax foofu mooy libéré naan nit ñi dem leen ngeen liggéey politiquement électoralement pour la victoire donc loolu mooy kàddu yi nga xam ne moo fa rote nekkoon leeral yi euh, Seydou euh, Guèye euh, jëmale ko kon ci li ruuse tey jii ca pale ba PDS ñoom bàyyeeguñu ndax nee nañu lu aju nag ci mbirum guerre mi nga xam si ñoom ñoo ko jibaloon tudd ci ay membres conseil constitutionnel duñu ci dellu gannaaw te itam nag ni ñu ci tuddee Amadou Ba mi faw nag loole daal di leer ba tey nag fi nu jàppoon ñu jàpp fa ba tey ne li ñu bëgg moo ñu daal jële fi conseil constitutionnel bii fi nekk nekk xujja ja Mamadou Lamine Thiam ak parti démocratique sénégalais PDS ñoo ngi woy ci tuumay corruption gindaan teg boobu ba léegi jëmale ko ci mbiru benn bokk yaakaar bi di Amadou Ba. ay audio yoo xam ne si ñu ngi circulé ci YouTube. ñu ciy proposé ay un milliard. ñu ciy wax ba ciy wax nu ñuy dindee Karim Wade ci élection yi. PDS nag dina woy di teg ay jéego ngir ñu doxal yoon jëmale ko ci tuuma yi. ci jéego yooyu sax mi ngi sàkku ngir ñu tas conseil constitutionnel. lii nga xam ne si feeñaat na. ñun danañ ci porter plainte ci juridiction yi nga xam ne si ca lañ ko war a def ak lii xew ñu ngi gën a am yàqin ak firnde ni conseil constitutionnel bi fii dindiwuñ ko ci Sénégal teg ki a sa place beneen cour bu nga xam ne si dana mën a doxal li Sénégal dëgg du nu am jàmm ci Sénégal te dëgg du am ci élection yi. Mamadou Lamine Thiam nag moom nee na lu mu mënta comprendre benn yoon mooy noppi gi nga xamante ni moom la société civile bi ak yenn institution judiciaire yi noppi ci affaire bi. pour ñun ci njort bi nga xam ni si amoon nañ ko li ñu jaaxal nag ñun mooy lu tax waa société civile ñu leen ci média itam ñu yi itam waa ñi nga xam ne si ñoo yoon te ñun jàpp nañu loolu ay preuve la yoo xam ne si day wane li nga xam ne si waxoon nañu ni am na guerre bu am ci suñu système démocratique bi. parti démocratique sénégalais nag ñu ngi woo seeni militant ngir ñu taxaw temm mobiliser ci seen xeex bi ngir justice ak dëgg law ba faaw. jaajëf Khoudia Dia ngeen di woy di déglu xibaar yi guddi gi ci rajo Futur Media juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal juróom-benn simili. RFM rajo askan wi. coalition Diomaye président bokk na ci seen programme ne bu ñu déggee daal di ba jël réew mi dañ fi andi euh, xaalisu suñu xaalisu bopp maanaam jële fi franc CFA loolu nag euh, daal di tax ñu indi ci ay leeral ne bu mënee nekk képp lañ koy def te itam nag buñ ko demee ba koy jëfee fi nu war a jaar la ñuy jaar euh, Daouda Ngom moom membre la ci cellule des cadre bu coalition Diomaye président tey jii bokkoon na ci gan yi Bey ci émission géew bi. ñun présenté nañ suñu programme te ci suñu programme politique dafa am benn point boo xam ne dañ ne dinañ def réforme monétaire loolu yëpp liñ ci jublu mooy ëgsi ci am sunu propre monnaie waaye dafa am luñ ci yokk te souvent dañ koy occulter eh, dañ ne cependant la création d'une monnaie nationale requiert le respect des étapes du process dañoo cité ñun lu ñu wax ay préalables douze préalables yoo xam ne boo ko respecté wul tu peux parler de monnaie. Hmm. bu njëkk bi mooy mettre en place une politique macroéconomique solide. munoo am économie bu yox-yox yi nga bëgg ne da ngay am sa propre monnaie. séparer les banques d'affaires de banques de dépôt. avoir des moyens technique de création monétaire. yu bëree bëri munumaa lim yëpp. Hmm. ba ci bu mujj bi mooy am sa banque centrale. donc dafa am fu muy jaar. waaye li ma bëgg nit ñi xam. Hmm. mooy waxuñu ne. dañuy jël pouvoir bi tey suba ñu mettre en place une monnaie. wax naa la ni douze critères. te loolu am na lu mu laaj xëy na sax man naa bañ a nekk ba fin mandat mais li ñu gënal mooy mu am mais li ma ci xaw a jaaxal rek mooy li ko ñenn ñi di coow parce que franc fa foog ma wax ci franc fa ñu ngi ko créé en 1945 billet franc CFA ñu ngi koy defaree Clermont-Ferrand en France franc CFA Maroc ci la bokkoon génn ci en 73 ou 75 li tax mu génn ci xam na ne franc CFA du monnaie boo xam ne nii mën nga cee développer sa économie tey jii nii pour defar les billets ak assurance yeeg li ci wër yëpp dañuy dépenser cinquante deux milliards par an pour ça. Sénégal kese wala UEMOA. non euh, banque centrale. et boo demoon France yor sa monnaie sa CFA xanaa nga lakk nga ci man mënoo ci dara te ñoom nee nañ ñoo ko garantir de. yow nga yóbbu CFA France dem banque France ne damaa bëgg a wecceeku France CFA ñu ne la mënul nekk parce que pour ñoom c'est pas une monnaie. taskatu xibaar bi la di ma Madiambal Diagne moo bindoon ci suba ne euh, ki la di euh, Bassirou Diomaye Faye ak usmaan Sonko mën naa am ñu génn tey ñun itam ñu daal di koy euh, tollanti woon loole nag andi na ci ay leeral ne ci ni mu ko waxe woon ak nag li mu ci amaat moo di ne mbir mi mën naa dem ba fii ak ëllëg kon ci àllarba ji ñu des ba tey ci wàllu politique ak lang gi liñ ci nemmeeku moo di fi mu toll nii ñu baree bari daanaka riir nañ utali coalition Diomaye président ci sax ñoo xam ne si daanaka bu njëkk neexawuñ woon ay nit yoo xam ni ci système bi lañ bokkoon dem fekki ñoo xam si waaye waa anti système bi lan loolu nag moo tax. ñu jox ci kàddu gi ay xeltukat ñu seen xel màcc jëm ci wàllu politique ak mbir mile lan moo ko mën a di waral Kumba Sanjaan Faye. fekk du yàgg amaana Benno Bokk Yaakaar doon Benno Bokk Pastef daf te ay àndandoo woon président Macky Sall tey jile fekk ci coalition Diomaye président mu bokk ci ñoom ñi fi ne woon jëwriñ directeur généraux wala premier ministre am lu ñu mën a jàpp ci ay baatub système wala anti système lu ci mën a doon Assane Seck interactivité ak globalité élément yu bëri ñoo koy composé yu bokkul fa nekk pour que looloo tax sax ñuy wax système dafa complexe complexité ñay ànd boolandoo système ñoom ñëpp bokk ñu ndey ak bàyyi candidat bu luñ duppee anti système ñu bokkoon ci système bi wax ko tey jile def ko candidat dafa fekk ne ku ci élection yi booy seet daanaka digganteem làkk Amadou Ba mi doon candidat coalition bi ñu bokkoon Babacar John tey xeltu jëm ci wàllu politique ñoom ñu si bëri vote utile la ñu jëm parce que il y a une am na entre ak ak kaw Amadou waaw ñoom ñaar daal léegi si ñoo gën a fës waxuma nag ñoo ëpp doole waaye ñoo gën a fës si langue politique bi loolu dina encouragé ñi nga xam ne nekkoon nañ si Macky Sall ñu dem fekk Diomaye parce que bu ñu nekkul si Amadou Ba dañuy bëgg a dem foo xam ne nag <laughs> am na solo am na ñam am na représentativité am na coow Mimi Touré maître Moussa Diop Birima Mangara Mary Teuw Niane Serigne Gueye Diop Samba Ndiaye ku ci mujj Pape Samba Mboup ñoom ñëpp coalition Diomaye président nangu seeni ñëw ana lu mu doon tey ci wóolute ak dëgërub projet anti système bile Assane Seck xel da dul mën a nangu tey jii nga bokkoon ca démb ñi nga xam ne ñoom dañoon lënkaloo woon jëf yenn jëfi nii nga yeew suba ne yow raxasu nga ba set léegi bokkatoo si ñooñu yaa ngi bokk léegi si ñi nga xam ne dañoo jàpp ne que jëfin bu baax la ñuy jëfalee teg ndax système bii day dem fekk ji waa anti système wala anti ci boppam day mujjee doon système li wóor mooy débat bile ci diggante système wala anti système mu ngi bëgg a doon lu ñu weesu pour man RFM mooy rajo xibaar yu wér gaal gu suuxu ca njugu Mberas nekkee ca Richard Toll waral ba kon euh, ab waxambaane bu ñuy wuyoo Birama joor daal di fay euh, ñàkk bakkanam loolu nak metti lool askan wa fay yeewoo ba tax fi mu toll nii ñuy sàkku nak ñu daal di fay tabax ab pont kii wax ci seen kàddu di André Fall ñu teewlu ko ko Mamadou Diagne. benn boy bu def vingt quatre ans au niveau de Mberes ci gaal gi la doon jaar xale bi daal bu muy ñëw vers bi la seen gaal gi daal di suux ba mu lab ko dalee ñu Ndelle euh, gouvernement war na ngeen dimbali defal leen pont parce que vraiment lii dafa metti te ay gor rek a liggéey daan seen doole lañ fi nekkee te lii loo xam ne souvent ça arrive day am bu ñu sañoon nag ngeen dimbali leen ci yërmande ak mun demee lu luñ bàyyi mun def dimbali leen ci pont mooy parce que xale yi ni ñu labee noyade yi dafa metti xale bi vingt quatre ans la am pour seen njabootu ponkoon bëgg ko teg ko fu rëy te lii metti na lool nag loolu lañ leen mën a wax ngeen jàppandiku si taxaw si cas urgent parce que c'est urgent lii dafa bu urgent lab bi tëlee coup de presse ay sept heures d'après ci ñu ay sept ngoon yooyu parce que ku war ba suba war a ñëw ndogu si muy jàll gaal gi suuf noonu la xale di demee te vraiment ça fait mal ça fait ñu woyal xibaar yi wax itam ci wàllu euh, wér-gi-yaram fële ca mbuur la ñu fa nemmeeku nag moo di ne ay waxambaane daanaka euh, ñu baree bari biñ xoolee seen yaram dañoo am jàngoro jële di euh, jabet nekk nag loo xam si mu ngay bëgg bari ca gox ba tax nag ñi nga xam si ñoo di askan wa di ci ñaax ñi nga xam si ñoo di nit yi ñu daal di dem xool seen bopp waaye itam ñu moytu Ndeye Mati Dieng hypertension ak jabet nekk nañu jamono ji jàngoro yoo xamante ne bari na lool ay ndaw yu koy am fii li ci Sindia nag loolu mooy seetlu gi ñi ñu dénk kër docteur bi di ko déggal Pape Alioune Seck. parce que dañu seetlu ne fu mu toll nii xale yi dañu commencé am tension ak jabet te li ko waral ñàkk def sport bi ci la bokk. loolu moom mën nañ ko confirmer parce que fii ci structure bi wax dëgg dañuy gis ay mag ñoo xam ne dañu commencé jëlaage dañu am yaram mais su ñu xoolee li ci ëpp tension lay doon ak jabet li ko waral nag lekk tëdd. ngir fàggu nag ci yooyee jàngoro ñu daal amal bëccëgu dox ñu ne anam la ngir xamal ndaw ñi ak itam mag ñi mu baaxee ci wér gu Keita sportif la tout ce que nous mangeons à l'heure actuelle vraiment du ma wax ne baaxul mais quand même euh, dafa nekk loo xamante ni la plupart day nuire l'organisme humain parce que on mange trop sucré salé gras tout ça donc suñu deful sport ñu nekk ay sédentaires yu toog si kër yi defuñu dara donc loolu muy indi yenn maladie di indi ñii di am un taux de sucre élevé wala des fois ñu am problème euh, tension artérielle wala ñu am une prise de poids boo xamante ni après daf leen di daf leen di indil ay gàllankoor donc nekk noonu ñu génn mun pour mun a def sport. waaye nag ñaax nit ñi ci weeru koor gi dañ ciy gën a taxaw ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci kër docteur bi ne dinañu fëgg buntu ba ne ñu dugg fa. sensibilisation yi ñuy def routine mooy VAD yi ñuy def causerie yi ak mobilisation sociale gën a ñaaxaat nit ñi pour ñuy def euh, sport parce que loolu lu baax la ci wér gi yaram bi. dox bi le nag ñu ngi ko tàmbalee station Shell bi nekk ci Sindia dal di koy jeexalee gi ñaaboor Ndeye Mati Dieng Sindia rajo Futur Media. jaajëf Ndeye Mati euh, Dieng dañuy utali Linguère foofu moom euh, li ñu bëgg moo di euh, li nga xam si moo di suuf si ñu daal di cay jotaat su ko defee secteur élevage di wàllu càmm gi man faa daal di gën a ñoŋ loolu nag nekk dogal boo xam si initiative bi ko initiative boobu kon ñi ko jël ñoo di association pour le développement intégré et durable ñoom nag dañ cee lëkkaloo kon ak ñoo xam si dañ leen ci jàppale di ay partenaires. vétérinaire Baye San fexe ba suuf si naataat ba càmm gi mën a suqaliku loolu moo sabab ndaje mi fii ci Linguère diggante sàmmkat yi ak seeni partenaire Mama Gueye jiite projet bi di Jeune Val wante bokk ci ACF di kuréel buy xeex lii di xiif fexe ba dundalaat suuf te du nekk ci engrais du nekk ci leneen mais dañuy sukkandiku si jur gi nga xamante ne moo nekk si gox bi pour mën a dundalaat suuf si suuf boobu bu dundee mbay mi dina gën a ñoŋ sàmm gi dina gën a ñoŋ te nit ñi aussi liñ ciy jëlee dina leen amal njariñ ba mën a neexal seen dund lool lañ ñëwoon tey yii di ko fi lancé ci turu ACF e ak partenaire bi ñuy wax ADID ñu war ko mettre en œuvre projet bi nag ñetti at lay duré commence nañ mën nañu wax officiellement le premier janvier gii di adid te boot ay sàmm nee na li leen gën a yitteel mooy fexe ba càmm gi gën a ñoom ñax mi fi amoon bu jëkk ak garab yi fi amoon amatu fi tey liñ fi gën a gis mooy ñax mu xonq mi nit ñi naan demba yàbb ñu bëri di nekk ay éleveurs surtout fii ci dans le département de Linguère dañuy dow sax département bi di dem côté penku dafa yóbbu seen jur gi li waral loolu nag mooy que ñax moomu dafa nett ñax mu nga xamante ne baaxu ci jur gi surtout lu nawet ñu bëri ñu ngi transhumer ñeneen ñi ñu ngi jënd aliment de bétail mënatuñ ko sax jënd loolu nag moo tax il faut ñu jël ay pexe yuy tax ñu mën a dund la suuf si mu jàpp commune bu Deyaly dinañ ko yaatal fépp ci biir réew mi. bu doxee nag ci unité pastorale bu Deyaly ñu yaatal ko biir département de Linguère bu doxee biir département de Linguère ñu yaatal ko biir Sénégal. ngir jàmmarloog lépp lu mën a gàllankoor càmm gi fii ci département bu Linguère duñ jog ci di lal ay pexe ngir loolu bañ a am Baye seen Diaw Linguère. rajo Futur Media. jaajëf Baye Assane euh, Diaw euh, bokk na ci kon lenn lu ñu fi euh, dabe tukkee ci conseil des ministres moo di njiitu réew mi di président Macky Sall sàkku nag ñu daal di gaaw jëfe lu aju ci am ne loi bi kon ak ni gannaaw bi ñu ko voté ba noppi leneen li kon dinañ leen ko càmbar ci suñu yeneen jotaayu xibaar. pour man RFM rajo bi gën seen soxla. jaww ji ak coppite gi ci am fan yi météo daal di xibaar ne euh, lu ko dalee fukki fan euh, ñett ba fukki fan ak euh, juróom-ñeent ci weer wi ñu nekk weeru mars wi dina tàng jër rawatina nag ci digg réew mi tàngoor woo xam ni dina ànd ak mbooya tax nag ñuy ñaax nit ñi ñu daal di moytu bu baax a baax. Mori euh, Touré moom ingénieur la nekkit euh, prévisionniste ca ANACIM ñu teewlu kook Jean Paul Ndour. ANACIM moo leen di jégal li ko dalee fukki fan ñett ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars. Uh, 2024 ñu ngi xaar tàngoor wu tar euh, ay température yu toll ci ñeent fukk ñett ba ñeent fukk ñeent loolu nag moo waral cim di leen yëgal nii am na mbooyo bu tar boo xam ne mi ngi dugg si si réew mi ba tax nag ñu leen di bàyyiloo xel bépp xabaar boo xam ne mi ngi jógee kër docteur wala bépp ndigal boo xamante ne nii waa kër docteur jox nañ leen ko ngir ngeen ngir ngeen aar seen wér-gu-yaram waaye itam ngeen aar seen wér-gu-yaramu njaboot. coppite gi am ci wàllu jaww ji junjoon naa leen ko ci bopp xibaar yi moo waral ba fukk ak juróom-ñetti euh, enseignant chercheur euh, dal di dajaloo fële ca daara ju kawe ja nekk ca Bambey ngir nag càmbar lu ni mel waaye itam wax njeexintal yi nga xam si mën na ko indi ci wàllu wér-gu-yaram Babacar Diouf. qualité ngelaw li nuy noyyi fi mu na nii jaaxal na ñi nga xam ne ñooy enseignant chercheur yi nekk ci université yi nekk ci àdduna bi professeur Bertrand nemmeeku ne jaww ji dafa soppeeku lu bari te loolu nag ci sunu bu jëm euh, yu bari yoo xamante ni daal buñ ci jógul dina indi sa jafe-jafe ci sunu dund. ci lël bu dajale réew àdduna bi yëpp lanu amal fi nga xamante ni mooy université Alioune Diop bu Bambey pour xalaat ci mbir mi ak jafe-jafe yi nga xam ne war na ko mën a am ba indil ko ay saafara professeur Issa chef du département physique et sciences compliqué. le fait que ñu xamal nit ñi que nit ñi que lii day polluer lii du polluer pour que ñuy changer ce qu'on appelle les éco-comportements dafa am solo beneen business aussi dafa am beneen nouvelle technologie boo xam moom la ñuy si atelier bi. mooy defar ay appareils ay connexions yoo xam ne dañuy permettre non seulement ñuy wax niveau pollution bi mais ñuy xam sax yan polluants yi ñoo nekk si biir. dogal ak xam-xam yu bees yi tukkee ci ndaje mi dinañ ko gën a siiwal ba askan wi yëpp mën cee jot ndax seen wërgu yaram gën a mën a ñëw professeur Ibrahima Faye xamle moom moo directeur université bu Bambey bi. suñu devoir xam nga université mission yi dañoo bëri te lépp looy def ci biir université bi dafa war a intéresser population bi suñ ko defee aussi def ko ci ay tiroir du jëriñ dara donc ñun dañ leen di accompagner jusqu'à la fin du processus lépp lu ci war dinañ nekk seen ginnaaw ñun ak directeur du UFR yi pour def. ñu jóge ci fukki réew ak juróom-ñett yoo xam ne ni ñu ngi ci juróomi continent yi xeltukat ak jàngalekat yi de ñoom ñoo bokk benn bëgg-bëgg bi. fexe ba ñëpp xam ngelaw gu nuy noyyi ak jafe-jafe yi mu mën a am ci askan bi bombe yi RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf yegsi nañu ci reportage bi nu jagleele koor gi tey nag koor gi ak embouteillage bi la ñuy waxtaanee ndax daanaka ñu baree bari ay jafe-jafe yu métti la ñuy jànkonteel rawatina fii nii ci biir Ndakaaru ak embouteillage yu métti am na sax ñoo xam ni daanaka ndogu ci yoon wi la leen di fekk reportage u Mamadou Sy. Ndiaye chauffeur bus Tata la moom mi démb ndogu ci embouteillage yi la ko fekk mu doon nag situation bu metti dugg Wakam dafa metti circulation bi mi ngi commencé après Cheikh Béthio ba école normale mu metti loolu nag ak koor gi quinze heures jàpp dix-neuf lu métti la ñuy jànkoon mais nag moom amuñu si benn pexe moom kay da ngay ànd ak moom rek. ci arrêt taxi nekk ci Sam Mohamed Ñing di xaar ay clients yu war a dem Kër Ndiaye Lo embouteillage yi nag ci weeru koor gi lu muy faral di dajala. ñu métti mu tàmm nañ suñu liggéeyal suñu bokk. waaye moom fi ne ma da ngaa yegg Kër Ndiaye Lo di nañ ko. Bamba moom ñu fekk ko ci bus Tata muy xaar chauffeur bi ci koor gi léeg-léeg day teel a wàcc ngir rek ndoguli bañ ko fekk ci embouteillage yi. da ngay bëgg njëkkante ak temps bi sax foog nga ndogu di la ko fekk da ngay foog ne mën Sandaga Vendôme parce que ba Colobane dangay obligé jël foofu a dem ba su jaaroo ko mais day difficile quoi parce que des fois ba da dem jël terre bi mais bi da nga fay fekk nit ñu bari. ci njëlbéenu weeru koor gi ñu wéy dina mee koy embouteillage mu doon nag situation buy jugal jafe-jafe ñenn ci ay nga xam ni ndogu di leen di fekk ci tali yi. bàkk bi tàggat yaram lay yëgle ak ñun ci studio bi Pape Malick Diaw maa ngi lay nuyu. di la fay bu baax Serigne Saliou Seck. ñu tàmbali kook Youssouf Sabaly mi bàyyi équipe nationale bu Sénégal. loolee suñu confrère des sports ñoo ko daal di yëgle ci simili yi ñu daal di génn ni moom kii di Youssouf Sabaly daal di nay retraité ci li nga xam ne ni moom moo di carrière internationale am maanaam ci équipe nationale bu Sénégal moom mi nga xam ne ni 31 képp la daal di am bu ñu sukkandikoo ci waa des sports nag jot na waxtaan ak Aliou Cissé ba tax na moom li mu daal di mujj décider rek. moo di arrêté carrière ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum équipe national ngir gën a mën a concentré wu te wëyal carrière ca club maanaam Betis Séville moom mi nga xam ne nag euh, fanweer ak benn sélection la daal di am am ci benn bu moom euh, Youssouf Sabali bokkoon ci homme de base Aliou Cissé. Euh, daanaka sax li nga xamee ni wala boog ñu ci bëri njorte ni euh, li waral mu arrêté carrière ci wàllu équipe nationale moo di blessure yu bëri yi daal di tegloo muy loo xamante ne nii nag euh, daanaka ci loolee la daal di sukkandiku ngir arrêté li nga xam ne moo di carrière internationale am moom mi sax bokkoon ci groupe bu mujj bu Aliou Cissé nekkoon fële ca Côte d'Ivoire ci Coupe d'Afrique des Nations waaye jotu la amal benn jongante li ko waral moo di blessure yooyu nga xam ne ni junj nañu ko du ñàkk ni fàttali ni niki àjjuma ji fukki fan ak juróom ci weeru mars kon la nar a amal ak publication liste équipe nationale ngir amal ñaari match xarito yi nara am foofee ca France ca Amiens benn bi ñaar fukki fan ak ñaar euh, ci weeru mars gi nara dox seen diggante ak Gabon beneen bi ñaar fukki fan ak juróom benn maanaam bu ñu ci tegee ñeenti bis euh, ñu nar a joganteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Benin kon vendredi lay daal di génnee list bi bu 10 euh, heures jotee mënees na noo wax ci équipe nationale ba tey waaye bi yoon ci wàllum U20 yi nga xamee ni kii di entreneur u jamono ji Guédiawaye FC moom mi nga xam ne ci décembre la daal di agsi ci boobule club ni moom moo di ca euh, Casa jamono ji di amal liggéey bu mucc ay ayib foofee ca géejawaay ndax moom ex euh, entreneur u Casa Sport daanaka juróomi nun lay am ak géejawaay ak ñeenti ndam yoo xam ne moom lay daal di am jóge juróom ñetteelu place bi àddu ji ba ñetteelu place su euh, ligue bi le loole nag yamu ci ndax jamono ji bokk na ci li nga xam ni moom moo di taxawaayu entraîneur gi mu amal moo waral fédération daal di koy xëcc teg ko ci wetu kii di Serigne Euh, bu U20 euh, yi moom kon Ansu Jaaju daal di doon adjoint wu Serigne Saliou Dia ci boobule équipe nationale jot na ki sax yëkkati kàddu ci micro Youssouf Bodian ñu teewlu ko. sama intégration bi ak damay awma lu dul parce que ba may commencé di entraîner loolu moo nekkoon sama objectif chaque fois may progresser may amay promotion donc bii moo ko amee kon promotion la ci man mais promotion boobu doon waruma nelaw dama war a gën a liggéey ma xam ni léegi nag. la liggéey bi gën a commencé parce que nekk ci équipe nationale du lu yomb parce que ñëpp fa la ñuy xool donc amoo lu dul joxe satisfaction parce que ñi fa nekkoon def nañ liggéey bu rafet kon ñun tam dañu war a ñëw def comme ñoom lu ñu def wala dépassé leen moo tax tey fu mu nekk nii li si gën a am solo moom ñu concentré wu ci liggéey bi ñu mën a def résultat. Ansu Jaajo entraîneur Guédiawaay nara doon kon euh, ci euh, bokk ci staffu euh, u yi doon adjoint wu Serigne Saliou Dia ci boobu lay sélection football championnat local ñu wax ci itam ak jaraaf mi nga xamee ni kon fii ak saison bi di jeex fële ca stade municipal bu Ngor lay daal di dalale ay jonganteem kon dootu ko dalal foofee ca stade Iba Mar mi nga xamee ni dañ koy tëj li ko waral moo di dañu koy defar ak Jeux olympiques de la jeunesse ci Dakar yi ñu amal ci atum 2026 kon liggéey bi nan la ñu nar a amalee ay déplacement wutali ji stade Dangor ak nan lañ ci nar a organiser woy jóge fii ci Médina ki nga xam ne moom moo di Ami Ngom jot na waxtaan ak kenn ci ñoom. tere baaw ka ak soo jaraaf bu génne ay score lay dóor ñu fekk ko ci rue 6 ci Médina ak ki xaritam Lamine supporteru jaraaf la moom leen nag équipe am muy dem ca stade bu Ngor ngir nag recevoir li nu mel Malick amu ci benn jafe-jafe Iba Mar bi baaxul mooy loolu quoi Iba Mar joueur yi muy fi fool mooy loolu fool ay match yi nii terrain yi nii terrain yu baax yi jaraaf day dóor ay score yu baax fekk boo xoolee jaraaf lu mu génn dóor mu ëpp sax mu lu lu ko soriwul dara rue 11 Abdoulaye nekk ci wàccaayu ndogu li moom ni nu mel la gisee waaye jàpp na ni côté supporter yi moo nara a jafe mois de ramadan rek nekk ak fougue de jeunesse bi ak foule bi ak ambiance bi ndax nombre de supporters bi équipe bi doon dugal fii ñëpp xam nañ dina xaw a wàññeeku daal. Ibrahima Soli Diallo jàpp ni jafe-jafe ñeel déplacement supporters yi mën na ñàkk su fekkente ni jaraaf jël na lépp lu war ngir supporters yi mën a dem stade. moom daal nañu gaaree ay kaar rek ngor bi moom du problème ngor fii la soriwul bu bëggee daal mobilisation na mettre en place yaa ma gën a am chaque match jaraaf xool mettre en lu mu sax. moyen de transport rek la ñuy laaj bu ko mettre en place moom supporter def leen déplacé wu massivement jënd suñu ay mayo jënd suñu ay ticket supporter suñu équipe. équipe bu Malick daaf kon war bàyyi stade bi mu doon amal ay jonganteem ngir nag di recevoir ca stade bu Ngor supporters yi jàpp ni li nu mel lu gën la ci seeni équipe waaye nag am nañ tuuti tiitaange jëm ci supporters yi war a dem foofu ca stade bu Ngor. Ami Ngom ak jaraaf mi nara a dalal kon ay joganteem ca Stade de Ngor fii ak saison bi di daal di jeex ca bitim réew fàttali ñu ngi wëyal lii di huitième de finale retour jamono ji ñuy wax ak yéen Atlético Madrid ak Inter Milan ñu nga defa góom euh, donte millan moo daanoon benn bal ci dara ci ale bi kon jamono ji buñ ca yemee Inter Milan mooy daal di qualifié naka noonu ci diggante PSV Eindhoven ak ki nga xam ne moom moo di Dortmund ndax ci àll ga 1-1 la ñu defum te jamono ji ñuy wax ak yéen Allemagne yi di Dortmund ñu jiital benn bal ci dara kon bu ñu fi yemee ñoom ñooy daal di qualifié ci quart de finale yi fekki yile équipe di Manchester City Real Madrid Bayern Munich Paris Saint-Germain FC Barcelone Arsenal nga xam ni kon fàttali ni quart de finale. tirage yi ak demi-finale yi dañu ko amal vendredi euh, bile fukki fan ak euh, juróom ci weeru mars gi foofee ca euh, Suisse jeexal xibaaru tàggat yaram yi ak Europa League gannaaw Ligue des champions wax ci itam ak Marseille bi nga xam ni mu ngi waajal manche retouram nar a dox si digganteem ak Villarreal ci fàttali ci ale bi ñeenti bal ci dara la Marseille daaloon di daan ni ki ëllëg nag daañu amal manche retour bi moo waral tey ñu amaloon conférence de presse d'avant match moom Jean-Louis Gasset daal daal wax nag leer na donte ñoo daan ñeenti bal ci dara ci ale gi waaye retour bi ñëwuñ ca Espagne ngir amal ak doxantu li ñu leen fi indi moo di ndam képp ñu teewlu ko moom itam. on dañoo war a def lu gën que li ñu defoon ci match aller bi. te ñun li ñu fi indi du leneen lu dul ndam. ñëw ñu fii ci Espagne xool ci Villarreal moom mu doxal bal ñun itam dinañu jouer wane suñu doole suñu football comme ni ñu ko defee ci match ale bi bu ko defee ñu mën a am dara fii ci Espagne Villarreal nag moom équipe bu mag la donte itam ñu bëri ñu ngi koy bàyyi xel ñu bëri dañu ko ragal waaye ñun itamit dañuy bàyyi xel loolu ndax équipe bu mag lañu te am na ñu ñemewul dinañu fexe ba mu daal di sax. villa on fait peur et ëllëg ci manche retour huitième de finale Europa League bokk na ci itam yeneen jogante West Ham Fribourg Liverpool Spartak Leverkusen Karabag Rangers Benfica Atalanta Sporting ak Brighton mi dalal AS Roma. cant gi tey amoon na bisaab. waa am bu saf sax. boo demee xëy na ci kaas. <laughs> <laughs> jaajëf Pape Malick Diaw jaa ngeen jëf mbokk yi kon fii la ñuy yam ak ci xibaar yi guddi gi bi ci ëppoon doole bokk na ci euh, secrétaire exécutif national ba APR la ca tukkee moo di njiitu réew mi kon dëggal ne Amadou Ba mooy ab candidat am daal woo ñëpp nag di bokk ci APR ak Benno Bokk Yaakaar ñu dugg kon euh, réew mi euh, dem campagne yi ngir seen candidat am ca ndam lenn ci lu ñu jàngee ci conseil des ministres itam moo di amnistie bi gannaaw bi ñu ko voté a mang bi lu aju nag ci Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ba tey euh, génn guñu euh, kaso yam fi mbokk yi gërëm leen bu baax a baax gërëm Matar Sam mi nekkoon ci machine bi farewoon itam ci digital bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kàddu gi production Assane Biram Diouf réalisation Jean Paul Ndour mooy ñëw 22h jox leen xibaar yi ci kàllaamay français ci kanam tuuti journal de la campagne ak Mouhamed Jo Diop lu mooy loolu man maa ngi jaajëfal.